بسم الإله إفن الأدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإله إفن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokk jullit yi fu ci waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu fi waaj a gaaral mu néew mu bari yàlla nañu yàlla defal jàppandal ñu jëlee ko ak suñuy xel waaye nangoo ak suñuy xol ba am ci dallaahi muy ngërmal yàlla yàlla na ko yàlla defal mbokk yi junjoon nañ ni am na ñaari bis ci weeru koor wi muy ñaari bis yu ñu war a yittewoo muy yowmu latul xadar te jàll nañ ko kon tey émission spéciale lay doon ci yow mu badrin muy bisu xare badar mu nekk nag émission spéciale boo xam ni liñ ciy jànge dañ koy jéem a dëppaleeg li ñuy dund tey ci coronavirus bii nga xam ni lëmbe na àddina bi yëpp te muy benn soldaar ci soldaar yàlla yi nekkit yónnent waaw maanaam yónnentu yàlla la yónnent bu yàlla yón la ci ci xeet wi pour jàjju dellowaat mbir mi suñu boroom subhanahu wa taala ba tey ji réew gënoon a mag jàpp na ñoo yore xam-xam ñoo yore am-am ñoo yore man-man ñoo yore doole tey paralysé wu nañ ñu ci coono asamaan rek suñu réew yu ndaw yi kon mbir mi dafa ñëw dal suñu kaw waaye ku ne mën na cee tiit ku ne mën na cee jaaxle ba mu des ab julit ab julit moom lu mel nii bu ñëwee day xam rek ne moom moo tooñ boromam saa borom jox ko lu mu war a delloo ginnaaw mooy lu mel nii kon julit na dellu ginnaaw xool mbokk yi xeexu badar dañ cee jàngat loo xam ni dinañu may ñu mën a saytu feebar bi bu mën a am résistance bi bisu badrin xeex la woon boo xam ni saa boroom daf ci doon leeral diggante dëgg ak neen diggante yàlla ak lu yàlla waaye du xeex boo xam ne dañ koo waajal comme ni ñuy waajale yenn feebar yi ak ni ñuy waajale yenn yenn jafe-jafe yi ba bu ñëwee nga mën a am foo fooy génne ñu ko tuddee sorti badar demuloon noonu mbokk yi badar xare la boo xam ni yonent bi saa salaam programme bi wu ko woon ba war a mën a jël ci waajtaay loo xam ni gëm na ni ñañuy ñuy jàmmaar lool ci wàllu zahir ñoo leen ëpp nit ëpp leen mbooloo ëpp leen gànnaay waaye yàlla bu lay woon dooleem dala ko ci anam goo xamante ni maanaam yaakaar du fa am mbokk yi gis nga xeexu Badar boobu jullit ñi <clears throat> ba ñuy dem di ko def xeex taxu leen woon a jóg xeex taxu leen a jóg li leen taxoon a jóg mooy jàmmarloo gi doon am diggante yéeféer yi ak jullit ñi ak fecc kóllëre gi nga xamante ni am na ba tax ñu teg leen par choc war leen not ci lépp boobu jàmmarloo nga xam ni dañoo war a saytu ci la jullit ñi doon demee pour jël dajeeg njëg njëg mooy caravane bi nga xamante ni ñoom dañ ko yoroon def ci ay ngànnaay def ci ay lekk def ci lu nekk pour mën ko xeexee jullit ñi loola moom la jullit doon doon contrecarrer booba Abu Sufyaan ca booba jamono moom moo yoroon njëg moomu moo ko doon gérer bi jullit ñi jógee nag pour war a dajeeg moom moom ci la yëg ni jullit ñu jóg nañ mu daal di bàyyi yoon moom doon jaar topp tefes gi daal yónnee ndaw ci waa Quraysh xamal nañ ne jullit ñi kat jóg nañu pour ut si ma maa ngi sàkku ndimbal lu ngeen mën ci ngannaay na ngeen ko ut ngeen def ko ba loolu amee ngeen def ko ñu def ko ci la ñuy préparé ñoom seen ngànnaay pour war a ñëw nag jàmmarloog jullit ñi faagaagal leen. kon jullit ñi bi Abu Sufyaan jàddee yoon ñoom dañoo daal di yëg ni kon mbir mi kat lañ doon wut amatul jafe-jafe kon mën daal di dellu waaye yëg ni yéefar jóg nañ yéefar bañ jógee aussi daal di takk seeni fas jullit ñi ñu ngi tolloon ci trois cent treize ñett téeméeri doomu aadama ak fukk ak ñett wala lu ko yës ñaari fas dong lañ amoon ñaari fas lañ amoon doon ko moomatale bu kii jëlee bu subaa bu bu ca kanam kii jël lu toll ci juróom-ñaar fukki gawar kon préparé wuñu woon ñi nga xam ne ñoo yëfër ñoom nekkoon nañu junni doomu aadama junni yoroon téeméeri fas ak juróom-ñaar téeméeri gëlëm. kon kooku seen armée dafa doublé armée jullit yi bi nga xamante ni Abu Sufyaan yéeg na nii mucc na maanaam caravane bi jàll na ca la yónnee ndaw ne nag léegi jaratul ngeen di ñëw ndax mucc naa yoon wi jàll na Abu Jahl ci mbeewam ak naw dooleem comme ni ko suñu réew yu mag yi nag seen doole ak seen armement mu ne ñun jóg nañ ba pare danañu dem ba ca place ba campé fa ñetti fan woo jigéen ñi ñu wëyal ñu tëggal ñu ñu rey gëléem yi lekk wàjj naan suñu sàngara ba jullit ñi xam ni ñoo leen ëpp doole fuuf bu ko defee boo ëllëgee dootu ñu xalaat sax pour jàmmaarloo ak ñun ñun il faut ñu àgg def loolu te fekk mbir ma jeexoon na moom ci noonu lii ba boo gisee ma koy wax réew yu mag yi fi nekkoon yoroon ne armement yoroon ne alal yoroon yi lépp jël àdduna bi monopoliser ko tey jii seen mbeew googu ñu bewoon comme ni Abu Jahil bewe leen yàlla subhaanahu wa taala nërmeele ila yumina haza Abu Jahil ci loolu la demee Badar bi mu ñëwee nag yent bi saa la yëg nii moom it gaa ngi ñëw mën a gaa yi ah, pexe jeex na kat waaju ñu woon pour xeex waaye xeex taxaw na na ngeen daal di fogaru daal leen taxaw waar leen yeb leen kañ leen bàkk leen saxaaba yi kenn ëpp leen ngor ñoom daal di wëlbatiku fa tabaarakallaahu daal di na yent bi sallam bul tiit dara ci ñun loo soxla ñu ngi ci nañu ànd salaa salaam ñu leen kontaan naa tey kontaan naa na ngeen bëgg man sax dafa mel ne yàlla won na ma xare bi fi muy amee wan na ma sax seen seen kilifa yi buñ leen reyee ba ñu jaaxaan tëdd fa ñu tëdd yàlla subhaanahu wa taala wan nañu ko kon nag aywa bismillah mbokk yi ci nii lañ demee dem xeex ak ñoom xeexam ñoom duma leen nangu seen i ngànnaay rey ci ñoom juróom-ñaar fukk Abu Jahl mi nga xam ne moo doon wane ni moom dina dem naan sànga def nangam ci xare boobu lañ ko rey rey fa juróom-ñaar fukk jàpp fa juróom-ñaar fukk indi leen sa borom may leen ci lan ndam yàlla na lii dama ko def pour wan leen diggante neen ak dëgg lu bari bi yàgg yàgg yàgg yàgg dëgg mooy not neen loolu laa bëggoon ngeen xam ko kon mbokk yi bu ñuy jeexal ci wax ji loolu lañ ci wax liñ ci wax mooy coronavirus bii dal suñ kow nañu jàpp ni maanaam day teqale diggante dëgg ak neen moom lay wane moom lay wane ni koy wanee mooy tey ñañ doon tuddee grande puissance

li yàlla indi de ñoom mënuñ ko woon def ci ngànnaay mënuñ ko woon def ci xalaat waaye sàmbarum indi na ko pour won leen ne leen diggante population yi am ci àdduna bi man yàlla waxoon naa bu yàgg ne yaa nas inna innaa xalaqnaakum min zakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda lay atqaakum mbokk yi boobu aaye dafa jot bu mbir mi jàllee ak jàmm ñi nga xam ni ñoo porté l'islam muy OCI organisation conférence islamique ak la ligue mondiale islamique nga xam ne ay membres consultatifs lañ ci Nations Unies bu jeexee dañoo war a dem yóbbu seen résolution mooy lan yóbbu fa aay bi mooy yaa nas naas e yéen doomu aadama yi yéen waa àddina bi inna man yàlla xalax naakum maa leen bind min zakarin ci góor wa unsa ak jigéen yéen a yem képp wa jaal naakum shuuban man yàlla maa leen def ngeen nekk ay peuple wa qabail ak ay ville ay tribu lu tax mu ne li taarafu pour ngeen mën a xamante yéen dëkk yi ndaw yi ak dëkk yu mag yi ndax bu ngeen xamante relation internationale ci lay juddu su ko defee mu nekk relation boo xam ni gagnant gagnant lay doon cest à loo rëy rëy rëy loo bari bari xaalis am nga loo xam ni mënoo ko am te ñëw ci dëkk yu ndaw yi dëkk yu ndaw yi am na mënuñ ko am te mu ci dëkk yu mag yi yàlla pour ngeen xamante ni dinañ mën caa jut kon boobu relation yàlla waxoon ñu ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg tey jii moom la ñu war a gàddu comme résolution yóbbu ko Nations Unies yàlla nag ni lii maa def parce que dañ ne ci àdduna kenn ku ne day soxla morom ma waaw wéykat bi ne na an naasu lin naasi min badiwin wa min xadarin baadun li baadin wa in lam yashuru qadam dafa naa ne sew xii la nee na ñu ci àll bi kaw gi ak ñi dëkk ci teeru bi waa àll bi bu ñu naw waa waa waa teeru bi waa teeru bu ñu xeeb waa àll bi ndax nee nag kenn ku ne ci waa àll bi am na ndimbal loo xamante ni ci ñoom lay jóge ñëw ci waa bi am na loo xam ci waa dem ñoom kon loo bëri bëri alal ba ci mi ngay liggéeyloo jàppal na loo xamante ni bu doon ko mën kon na nañ jàpp ni ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi liggéeyal sa morom donte yëgloo ko kon loolu nag moom moo am moom la yàlla doon ñu won ci corona bii diggante neen ak lu dul dëgg bu dëgg ak neen su ko defee bu passé résolution bi mooy ñu ut résolution boo xamante ni aussi moo koy am yóbbu ko xamal leen tey nag war nañu rebattre carte yi ndekete armement yi amul njëriñ tey mi ngi nii jëriñul dara xam-xam lu mu yaatu yaatu yaatu am na fu mu war a jaar kon nag nañu dem a créer ay relation internationales def ko gagnant gagnant te armement yi ñu teg ko ci suuf te xam ni ñu benn njëriñ ëllëg daf ñuy yàqal

kenn ci ñoom matalu koon kon sa borom ñëw na indi loo xamante ni wares na cee jàng bu liy jógee mu am benn politique sanitaire boo xam ni moom la pays africain yi war a tegaat surtout ñun suñ Sénégal gi bëri na alal yu ñu yàq bëri na ay investissement yu ñu def ndekete tey yàlla wane na ni preuve bi ci wàllu plateau médical bi sa borom indi na ko médecins yi jooy nañ ko docteurs yi jooy ko loolu aussi mooy njàngat mi nga xamante ni moom la ñu yàlla woon ci ñàkkoon préparé comme ni ko waa Bada defoon mais bu yàlla ñëwee ak dooleem force boobu la ko indee kon mu nekk boobu njàngat ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni kenn ku nekk mën na cee basé wu wax ci lu baree bare bare bare bari te yàlla mën naa def it ñu jóge fii am nañu tuddee ak nahd muy renaissance waaw la ñoon tuddee la renaissance européenne ginnaaw bi nga xamante ni am na benn waxtu wu lëndëm bu jàll nga xamante ni mooy temps wu lëndëm lëndëm ba ñu romb ko mu ñu tuddee alxurunul lii aussi mooy suñu xurun xurun wus sax ñu ngi ci loo xam ne buñ ci jógee war nañoo développé jógaat ci développement boo xam ne dafa ñu ci wàllu santé politique économique ba mu mën ba mu mën doon donc ci gàttal lii lañ doon moo taxoon ñu indi ñu ne émission bi émission spéciale la indi maarakatu badr ak la ci aju ak bettaange ba waaye ku yàlla jàppale nga dem ku yàlla seetaan nga am jafe-jafe buñ ko nattee comparaison ak corona bi moo ñoo yëkkatiwaat yëkkati suñu réew loolu mooy njàngat mi nga xamante ni moom lañ bëggoon indi tey pour tënkee ko li nga xamante ni fa tabarakallahu mooy lañ amoon di ko waxtaan toppoon ci sëñ bi toppoon ci njàngale mi tey ñu jëloon ko mu nekk benn bind rek boo xamante ni ko war a jànge ci façon bii nii incha allah rabbil alamin ah bu ko defee nag kon bu ñuy jeexal dañuy wax rek ne lii lépp nañ ko sant yàlla waaye di gërëmit nag wax dëgg yàlla waa Madiyana TV ndax ku la ni kaay ut yiw ut yiw mooy jamonoy confinement la nekk mën ngaa toog di nelaw mbaa nga toog nekk ci leneen waaye bu ñu la waxloo lañ lay waxloo di nga am di ko jàmbar ndax di nga bàyyi sa sa sa sa sa yi nga xam ne ñooy toog di la déglu kon ñoom am nañ cant gu wér a wér a wér a wér leen di ñaan ci ñaan gi sëñ bi doon ñaan ci waxtu waxtaan wi passé muy yàlla suturaal ñu suñu ayib yàlla na ñu suñu borom defal li mbir yëpp yàlla na ko suñu borom def defal leen ko ba mu nekk loo xamante ni ëllëg dafay nekk télévision boo xamante ni maanaam fa tabaarakallaahu ay caram day daal di màgg ndax gis naa ni ay xale la ñoo xam ne yëpp borom Pastef lañ gis naa nit ñuy liggéeyee te kenn ku ne war na cee teg sa loxo ci fii dañ sukkandiku di ñaan solidarité bi nga xamante ni am na ci koor gi ku nekk di génne maa ngi ñaan rekk waay solidarité boobu na am ci xale yu mel nii. ñi nga amuñu doole amuñu am am amuñu man man di waa Madiyana TV lépp lu waay di def bëgg loo xamante ni la ngay gis ndax télévision yi fi nekkat di defi caaxaan wax du ko fi jële bindu ko fi jële la ko fi jël mooy indi lu niróo moom changé programme bi muy jàngal mag ñi di yar ndaw ñi di boole di di indi suñu liggéeyu mag ñi nga xamante ni tey moo war a nekk ci école yi war a nekk ci programme yi lu mel ni moo ko kon maa ngi ñaan man ci sama manam sama sama ñak solo gi xalé yi ma gis ak Pastef gi ma gis ñom xamna ni amna am kilifa yu leen ëmb waye ma ngi ñaan ci solidarité bi am fu waaye mëna nek na nga jappalé ñu mel ni bo bëggé chaxan yi fi ñu mel ni ngay jappalé ndax tubaab bu liggéey liggéey mënoo ko fa jëlé da ngay sét lu tollok mom lu ko kon mangi ngi ñaan man mi li may def ni kess néew muy sama participation bu tuti nyan ngi ñaan ñi am am am ñi am xam-xam ñi am mën-mën nañu dajaloo boole seen doole dimbali xale yi nga xamante ni ñoo nekk di liggéey ci Madiyana TV ndax jàpp naa ne ku leen jàppale ñu dem lu bëri dina fi jóge ci seen Pastef loolu maa ngi koy dénk sama bopp di ko ñaan ñëpp di xam lii jumtuwaay boo xam ne ni amul péete lislaam ko moom fu ci mën a nekk war nga mën war ci mën a sànni séef mu nekk loo xamante ni day jëriñ àdduna bi yëpp jëriñ julli ñëpp comme ni nga xam ne nag suñu man baax doon defee xam naa ne tey moom xaw ñoo guddal waaye ñu ngi jégalu ci kàddu yi bu baax a baax a baax lu fi am daal ci njuumte suñu gàtt xam-xam la ak suñu ñàkk mën a wax waaye yéene bi mooy lu sell sell sell sa borom dimbaluñu tey ci zahir dimbaluñu ci bàttin kon daal ñu ngi jeexal suñu kàddu di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp euh, di gërëm technicien suñu technicien bi sëñ Moussa Kare ci liggéeyam bu rafet ak góorgóorloom ak seen vraiment fonk waxtu ah di gërëm mbokkam mi nga xam ne mooy ànd moom saa su nekk te buñu demee bañ mën ñoo xool mbir mi jaar fi mu war a jaar ci wàllu réalisation bi moom muy Serigne Ndiaye yàlla na yàlla def na ay mag mbooleem aussi mag ñi nekk seen ginnaaw di di am seen tuut di ko def ñoo ñu ngi ñaan yàlla lu ñu ca def yàlla ko sàmm mbokk yàlla yàlla defal jàmm defal ñu tawféex kon ñu ngi xaar ba suba ak jàmm incha allah ñu war a dugg nag ci li nga xam ne mooy dëj dëpp gi nag mooy lu ñuy liggéey lu nekk dañu bëgg ëllëg ñu dugg comme ça ñu mën ci dugg inshallah pour mën ko jéxalé waxtaani ko inshallah ñi ngi leen di kat kàddu yi bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الله يكفيني